jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ba tey comme niñ leen ko waxee rek euh, ñu fii nag ba tey ci màggal gi nga xamante ni mooy màggalug sëñ Mbacke Kande Bousso macha allah ñu nekk nag lenn ci biir pàcc bi nga xamante ni moo am ci biir màggal gi mooy wàllu bernde yi fi nga xamante ni fi la féete ñu fego ceeg ñaar ñoo xamante ni mën nañ ne ñoo yor ci li nga xamante ni mooy liggéey bii ñuy amal fii ci biir waañ wi euh, sëriñ Mbacke Kande Bousso moom it incha allah rabi ñu fas yéene koo dékk rek suñu micro mu wax leen rek ci. wàccaayu li nga xamante ni mooy euh, màggal gi nga xamante ni suba ba léegi ñu ngi ci rawatina pàcc bi nga xamante ni it euh, ci lañ féete mu doon euh, wàllu waañ waaye mu feggoo ko ay mbokkam ay doomi ndeyam ay mbokkam yoo xamante ni it ñoo bokk kër gi di bi macha allah sëñ Mbàkke xam naa kàddu yi du mën a gudd mel ni suba ba léegi yéen a ngi fii ci waañ wi ngir saytu lépp lu jëm ci xéewal yi nga xamante ni tey jii ñu ngi koy togg ci màggal gi nga xamante ni tey jii seetlu nañ ne mbokk yi bàyyi ko nañ fenn fu nekk ci réew mi ak li réew mi ngir teewe si li nga xamante ni mooy màggal màggal gi wàllu berne yi mu mel ni it yaatu na lool naka ngeen ko waajalee ba tey ku fi ñëw rek saxol mën a sedd lool ci taxawaay bi nga xamante ne amal ngeen ko tey jii ci màggal gi aousu billahi min asheytaani irrajim bismillahi arrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala asrafi alanbiyaai walmursalin sayidina wa maolana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwani wa tamkin ginnaaw bi ñu leen nuyee ci nuyoo bi lislaam bi nga xam ne mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu di nuyu mbokk yi nga xam ne ñoom lañ bokkal waañ wi di waañu kër Serigne Mbacké Kanni nga xam ne tey ñi ngi ci bis bi nga xam ne moom la ñu jàppoon di ko ci fàttaliku fàttaliku gi nag weesuwut la nga xam ne moom la ko as sayxul xadim radiyallahu anhu waxoon muy nañ ma wool sama taalibe ba nuy wax Mbacké Kanni te Cheikh Mouhamadul Fadal waxoon na ni ñi ñu xam ci histoire ñi Serigne Touba wax ne samay taalibe lañ ta nangu ko seriñ Mbacké Kanni mi ci la bokk loolu rek Euh, chaque année. tey jii nag fan yii yëpp ñu ngi woon ci programme bi di ko waaj euh, di def ay xeeti waxtaan ci ay rajo yu wuute ngir xamle kan mooy Serigne kan ni ak it wax ay jikkoom pour ñu mën cee roy bu baax a baax waaye ginnaaw loolu it ñu ngi ko doon waajal ci ay xeeti xéewal yoo xam ne mbokk yi nga xam ne woo nañ leen fi ngir ñu mën fee dajaloo ginnaaw bu ñu jàngee alxuraanul karim ba noppi jokk ak mbokk nga xam ne ci la bokk. bu noppee it war nañoo wut ay xéewal yi nga xam ne ci la ñuy berndelee mboolem gan gu fi ñëw ngir jokk ak mbokk ngir ci wuyu si wooteeb Serigne Mbacké Kane bi nga xam ne moom lañuy woote si fii ci dëkkam bi nga xam ne fii la nekkoon di liggéeyal ak Sayxul Xadim ba yàlla def li gën ci moom mu wujji sunu borom subhanahu wa taala kon bernde yi ngeen gis lenn waralu ko lu dul taalibe Sayxul Xadim yi nga xam ne jugee nañ ci gox yu fasantikoo ngir ñëw fi ànd ak ñun liggéey bi bëgguñu cee jàppale ba mu jëkk ñooñu rek ñoo tax a jug bernde yi ak jox ko jàngkati alxuraan yi nga xam ne ci suba ba léegi ñi ngi bàyyi ci daara yu wuute ngir ñëw jàng lim ci ay kaamil ak lim ci ay xasida kon ñooñu la ñuy waajalal bernde yi ak képp koo xam ne sunu mbég sa mbég la ak képp koo xam ne sunu wootee nga wuy siñu kon xéewal yi na nga xam ne yaa ko tax a jóg xéewal yi nag bu nu sañoon dara du fi des ndax loolu day yokku sunu tiyaaba di yokku tiyaaba Serigne Mbacke Kanni mi nga xam ne doom la ci Serigne Bousso bi ak soxna Aminta Kanni ñu di ko ko fàttaliku tey jii kon loolu daal tawféex la joo xam ne tawféex la ci ñun lool sant nañ bu baax nag mbooleem koo xam ne wuy si nga sunu mboote ak képp koo xam ne amoon nga yéene wuy si woote bii nga xam ne njabootu Serigne Mbacké Kani ñi ngi koy wooteel Serigne Mbacké Kani fii bi rawat ne fii ci kër gi nga xam ne moom lañ ko daggal muy këru Cheikh Mbacké Kani nga xam ne njaboot gépp ñoo ci bokk yem kon loolu it ñi ngi ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa taala mbooleem naal yoo nga xam ne Cheikh Mouhamadoul Fadal naal na ko fi yàlla na ko àggale ak mboolem ay rakkam ak mbooleem njabootu Serigne Mbacké Kani gépp te ñu fekke lépp te muurloo ko te mu jariñu bi jaahi Serigne Touba radiyallahu anhu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. jërëjëf Serigne Mbacke ci kaddu yu matala yooyu mbokk yi xam naa du ñu def li muy eh, dékki kaddu gi rek sëñ ab laat mu am ay kaddu yu mu ci sànni rek ndax day mel ni sëñ Mbacke matala népp waaye du ñàkk nga am ay kaddu jàngat yoo xamante ni tey jii am nga ko ci màggal gi nga xamante ni tey yéen a ngi koy màggal seen maam ngeen woote mbokk taalibe yi ñëw wuy si leen waaye rawatina laxasaayu bi nga xamante tey jii mën ñu sët yëpp laxasaayu nañ ko ngir ñoŋal li nga xamante ni mooy màggal gi baax a baax sëñ auzu billah bismillah inna waliyallah wa ma tawfiqi illa billah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi leen nuyu bu baax ñu leen siyaare di leen balu ak di leen balu ak waaw comme suñ comme ni ko suñ Maam Mbàkke waxee rek maanaam bis bi moom lépp lu nga xam ne aju na ci ci wàllum berne rek maanaam fas yéene nañ ko ca def ndax ku xam cosaanul yoonu murit wala ku xam sëriñ bi xam ne berne bokk na ci li nga xam ne lum gënoon a fonk la waaw ad dayfu akrimhu fa inna mabitahu xaqun kon dafa war ñun bu ñu amee gan te ki nga xam ne moom la ñuy defal muy Serigne Mbacke Kani dafa nekkoon koo xam ne ku xejj la ci Serigne bi jaxasoo moom jaxasoo bu am am solo jaxasoo boobu mu amoon na daanaka mën naa ne berne yu bari wala xeet mbirum xeetu berne yi nga xam ne Serigne bi daana ko yittewoo moom bokk na ci ñi nga xam ne Serigne bi daana ko jagleel maanaam muy taxaw yu mel noonu kon day baax boo xamee ne dañuy màggalal Serigne Mbacke Kani te Serigne Touba waxoon ko. Serigne Touba waxoon ko ne ko yow sama taalibe nga ba nangul ko ko ñëpp xam ko kon loolu day baax ku fi teew rek te ñuy màggal bis boobu kon ku fi teew rek ñu berneel la sant ndax amuñ lu dul bis bii waaw lépp loo xam ne def nañ ko ci rek maanaam dañoo dañ ko war def kon daal comme lépp li nga xam ne war na ko war a Serigne Mbacké Kane wax na ko kon xam naa jëruñ ci am kàddu yu gën ñu sant bu baax di leen gërëm waaw jërëjëf macha allah jërëjëf euh, sëriñ Abdoulaat jërëjëf sëñ Mbacke mbokk yi nii rek euh, la ñuy wéy ak yéen lii nag benn pàcc la woon ci fii nga xamante ni mooy ci waañ bi duñu def lu dul jéem indi leen lépp loo xamante ni am na tey jii euh, fii ci màggal gi nga xamante ni tey jii ñu ngi koy màggal sëriñ Mbacke Kandi Bousso kon ne tuuti ak suñu yeneen élément wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu